ñu nuyu nuyu bu gàtt rek dañu ñëw tey ah, na soxna may nañ ko jabar gis nga mbooloo maa ngi waaw maa nii rek am naa jàmm ah, kay seen waay de léegi daa ma ne ko sa waay léegi dugg a cour des grands léegi de ah. léegi moom kenn dootu ko xasali moom kenn dootu ko kokkali daal kenn ñaan ci sëy ay doomi barke rek waaw ñu dund lu bari ñoom ñaar ak soxna si incha allah am na solo jaay waaw ñetti morso waaw ah, nii la mën a demee ñun amuñu lu dul géejawaay géejawaay la ñuy tiitaroo lii dafa neex lii dafa neex c'est autre chose ah la dëgër waaw guy gi wax na ko tooñ na ko tooñati ko ne ko la dëgg rek takk jabar la dëgg rek takk jabar su ko neexee fi ne fanaani. tey day fanaani su ko neexee fanaani. déedéet amul ah su ko neexee fa mën naa kaa yóbbu mën naa yóbbu ku ne. xale ah, ma nga Maris. Maris la xale bi dëkk. waaw fële côté Nord Foire. tey lii xanaa yaa ko lijjanti. déedéet de lijjanti moo ko lijjanti boppam. Ah. moom koy lijjanti kenn yëgul kenn turu. Ah. waaye ma xamal la nee naa lu jot yomb Babacar. lu jot yomb bis te bis bi su jàmbur du bis. ñun géej way la ñu am géej lañu léegi kilifa la nekkul woon kilifa. mu ngi door a mat mi ngi doog a mat kilifa gaa ngi doog a mat. kontaan si yow ndax xale yëpp am nañu jabar. kontaan si yow kuy gi barki ne mooy kontaan ci yow. laa ilaaha naa kay. takkoo waaye maa moom ñi gënoon a sonal Lac de ci tooñ. defe naa yaay numéro un léegi daa mel ni am na jabar. waaw ñu ngi ziar ba. di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di la nuyu. di nuyu sa doomu ndey ci États-Unis Abdou woo naa ko léegi desaan mu ne ma nuyul ma Lac de ku nekk kontaan muy ku baax jàpp ji màggal gi bu baax gi tamit mu jàpp ji bu baax. di nuyu gën a Abdou Mangane Dubaay di leen nuyu Babacar parce que leen fu baax na ci moom de non baax bi ñu entraîné maag Sa Thiès li ma du caaxaan barke alxuraan karim ñu jàppante noonu faar gi daa wow koŋ koŋ ma ne ko Salif kii bu takkee jabar rek gi nooy. mbaa loolu la koy nooyal. <laughs> nit ki bu la defee lu baax rek foo toll ci presse bi de ko wax wala fooy foo koy waxee rek dee ko wax. Abdou Dramé bëgg nañ la. Abdou bëgg naa waaw Babacar maa la yow bëgg naa la tamit borom Dubaay ak kenn xamul nag <laughs> Lamine da nga mën a tooñ Babacar Babacar mu mel ni sa waay léegi nag am na soxna de waaw waaw waaw la da vraiment comme ni lu war la parce que xëy na nguur gi benn lañ quoi du dëgg nguur gi la mais nag dama ñoo far amal jàmm rek yow kontaan ci yow ñooy laxasoo ay góor Lamine xam na mbëri bu baax a baax rawatina VIP Lac de Guiers de Lamine takk na jabar lag yeexe na ko nag gars yi dañ ko teg pression dañ ko tànk moom takk jabar te takkam sax moom heure moom bëggoon a takk jotagul moom 2022 la bëggoon a takk mais gars yi moom ñoo ko mayul moom la ah côté moom xam naa ne du ma ci dama koy bàyyi ak Boucar moom mooy jàngkatu nasaraan bi ma ne yow ca daara ji lañ nekkoon ñun xam naa duñu xam ci loolu mais jabar nag lu baax la Babacar teel ko takk moom wàññiwul dara teel a takk jabar sax nekk xale dina tax nga am doom yu dëgër loolu moom. nga xam-xam daa mel ni. waaw loolu moom am na moom waaye ba bàyyi ma am sama âge bi wala nga mag ma takk ay xiboon rek ngay jur. kon nag fi mu nekk nii loo koy loo loo wax moom ci sëy bi loo ko ciy ñaanal. jàmm lépp lu mu ciy séntu rek yàlla na ci am lu gën a kawe njortam lu ciy séntu yàlla na ci am lu ko ëpp yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko sutura bàyyi ko ak soxnaam defal leen teraanga nag yàlla na ko soxna si bettee teraanga yàlla na ko yàlla ko yàlla boole koo xamante ne daal. ku yaatu xam nga jigéen ki mu ko booleel nii yàlla na doon nitu wërsëg parce que tamit jigéen waaw waaw waaw dégg naa jigéen ju ba bon na ma yàlla jégal mooy gaafu góor mu si la moo yàlla na nekk ku baax mook bëj bu mën a yem sànni rek ñi ci des nañ takk ñi ñetteel nag ñi ñaareel moo loolu na takk ñi ñetteel bala takk ñaareel giri am na ñaar giri am ñetteel ëma seen am ñaareel ah. tamit nga takk ñaareel yow nag xanaa doo takk aaw takkil Boucar yow ci aspect sportif bi laa lay laaj comme ni ko Lamine waxee yow it di suñu frère di suñu xale bu yaru macha allah maanaam sportif de haut niveau bu toll nii la de tey wala sax ku mu mënti doon mu takk soxna tey damay dégg ci mbir yi des fois ñu naan soxna nii soxna naa est sportif de haut niveau war na teel a takk soxna wala dafa war a bàyyi ba lan. waaw Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu mbokk internet Leewtoo yi rek yow ngay xam nga Sénégal ñoo baaxoo leen ñoom jàpp nañ ne moom boo nekkee sportif même football sax joueur sax da nga dégg ñu naan la bàyyil jigéen ñi balaa sa oom yi di yàqu gars dañ baaxoo di wax loo waaye sport moo nekk la nga xamante surtout ñoom sport bi ñuy def day laaj euh, booy booy entraîné day day toll foo xamante ne da dem si médecin sax ñu dig ñu diggal la ne faaw nga ànd ak jigéen ngir nga gën a allégé wu waaye tey Lac de tey mu ngi door a takk soxna soxna nag nee nañ ne euh, dañ koy takk sa aras xëy na dafay door a jot am na ñoo xamante ni tey dañ jàppoon ne euh, dafa yéex a takk dafa yéex a takk am na dañ jàppoon ne sax lu ne daal nit doon foog mais xëy lu jotagul la woon rek ñu waaw ñu ko ñaanal mu mu mu mu doon mu jikko mu doon soxnaam yàlla may leen njaboot ju ñu toog ba muurloo seen njëriñ waaye daal li leer ba leer daal mooy kon daal jot na fas na ñu ngi ko siy ñaanal jàmm war ngaa takk waaw man léegi léegi rek incha allahu rabi Lutte TV moom kenn yorul fa jabar bu sax yorul jabar bi sax yorul soxna mais nag xëy la nga xamante nii lu jot yomb lu ñu koy wax. bës mbër yi muy pay per view yëpp am nañ jabar na pay per view boppam takk jabar. waaw bës takkil jabar bës takkil jabar. yaa teral Macky ah ah maam booy maam booy yaa bëgg président ku la woo. kontaan

yaayu Lac de Guiers ndax euh, moom moo ma gis am cofeel ci man dénk ma doomam euh, Papis nag dox ko papam dox ko ay magam dox ko ak ay rakam ak waa écurie Waalo yëpp ñëpp ñëpp ñëpp mel ni ndigal boobu lañ doon wéyee yàlla def ànd boobu moo ànd moo moo jur lii tey ma ciy sant yàlla bu baax euh, su ma sañoon nag tey bés bu mel nii yaay ji dina fi doon nekk tey gunge na mais yàlla dogale ko yàlla mooy def li ko gënal donc euh, yàlla na fi mu nekk gënal ko fuuf fu mu jógee mais xam naa ni fu mu toog tey bëgg na ndax lii euh, moom moo ko sumboon te yàlla def ba ñu egg ci nii kontaan bu baax nag Pawlish Pawlish yàqu ci dara xam nga ki ngay xamante ne fekk mbër mu ndaw la da ngeen toll fii tey Sénégal yëpp di ko wër di ko bëgg def xarit moom yàqu ci dara bu ñuy wax waxu takk sëy Pawlish nanguwul jël bës man la doon xaar ma jël bës bi ma nangoo jël bés lañ tànn tey te bis nanguwul keneen dugal loxoom ci takk bi tey man maa demoon ñaani loolu yëpp euh, honneur bu ma defal la ma koy si sant bu baax maak ñi ma àndal di ñaan yàlla nag sër gi barkeel euh, day nag euh, mbëri nag dégg naa leen ñu ngi tooñ Pabis di naan gëmewuñu woon bés bi moo tax xëy na sax wóorul ñu ñëw mais ñoom tamit wane nañ mbokk ndax lépp luy doomu géejawaay lépp luy sportif mooy mbëru géejawaay yëpp magam yeeg rakkam yi ñu bokkal écurie ak ñu mbokkal Casamance ñoom ñëpp gis naa leen ñu ñëw teewu ci bésam bi loolu nag dina wone ni ñoom ñoo bokk ndey baay may ñaan seen ànd boobu law vraiment tey bés bu neex la ci man euh, dama cee kontaan bu baax may ñaan yàlla nag liñ ciy séentu ci ay ngëneel yàlla defal ko ko moom ak njabootam. kontaan nañ ci yow. kontaan naa bu baax jërë ngeen jëf jërë moom bi mu bëreeg booy ñaaw ba pare. waaw keroog yaa ko doon soxna jot na. waaw mu ngi noonu léegi def na ko xam lii rek buñ ko waxee di ci soññ yëpp pour moom la rek. ndax wax dëgg yàlla ni ko baax la toll na ci def na ko te liñ koy soñ yëpp taxu tamit mu war a takk ndax ni ko nekk da nga am sa vie bopp da nga am li nga xamante ni yaa ko moom sa bopp li tax takkul woon moom moo ko xam li tax mu takki tey moo ko xam waaye daal ñu ngi koy ñaanal yar sëy bi nekk sëy royukaay sëy bu sëy bu yàlla bëgg sëy bu sëy sëy bi yàlla teg loxoom nga xëy ne tamit yàlla moom ku mu gungee rek yaakaar naa jàmm la nga am waaw ni ko baax la nag yaa ngi koy ñaanal yàlla rek yàlla dafa ko jàmm xëy na nag yéex na ndax yaa ma gën a xam nga xam nga lépp mais ah. comme def na ko rek léegi dootuñu wax noppi nañu waaw di la xëy yàlla kese